waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp waaw di gërëm ñëpp waaw léegi nag moom man maa ngi tudd ndey Ndiaye Ngom dëkk Thiès quartier som waaw ñun jafe-jafe yi ni am daal mooy bourse familiale bi daal parce que ñun dañoo bokk ci bourse familiale bi yàgg na ça longtemps waaw léegi nag euh, ñuy joxe quatre-vingt mille yi mais quatre-vingt mille yi bañ ñu ci boole ba tey ñun gisuñu ñi am ñoo ëpp ñi amul waaw léegi nag ñu koy jooytu nag parce que Macky Sall wax dëgg fa yàlla def na fi lu rafet waaw ñu koy ñaanal fan wu gudd ak wér ak wér le ndax lekkul bàyyi kenn waaw kon moom dañuy wax ci moom lu baax rek lin naan nag euh, nit ñi ci jëmu boppam ah dañ lay jox ba pare ñu jël ko jël sa alal te duñ la jox loolu c'est pas normal ñun ñoo ko moom sunu suñu 80000 la nañ ñu ko jox waaw parce que euh, som ñi amul ñoo ëpp fuuf fuuf fuuf waaw ñi amul ñoo ëpp fuuf te loolu du yoon c'est pas normal dane ne envoyé nañ leen ay message message kenn gisul kii ci la bokk kii ci la bokk ak ñii ñoom kenn gisul te loolu du yoon parce que nit buñ la joxee xaalis jox ko nit danga ko ko war a jox waaw waaye lu nu def lu nu tëgg rax ci përëm li ñu tàmm nag baaxul parce que nit ci jëm boppam da ngay nite alalu jaamul la nan ñu jox suñu 80 mille ñëpp a soxla fii na julli gi dafa lang te soxla nan ko waaw ñuy naa bu ñu ci mënee doyil doolil bourse familiale bi parce que ñun ñi fi ne soxal nañu trop tabaski ji metti nag kenn sasul fenn waaw tey ji borom kër lan borom kër yaa ngi def sax waaye moom si jëmu boppam xale yi ku jóg danga naan yaay doo wax mu ko papa yaay rek waaw léegi nag ñun moom dañ koy lancé maki Sall Sall ngaari moo dañ ko koy lancé waaw di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ak wérle moom moo ko yor moo fi nekk macha allah lekk nan ci xaalisam wax dëgg fa yàlla bàyyiwul kenn macha allah waaw léegi nag ñun sunu 80 mille yi nañuy laaj nañ nu koy dugalal message nu ko le 10 bii lay am 2 mois kon yàgg na. ñu naan danoo arrêté ak dañ koo nii dañ di luugal xaalis jaamur yi di lekk te c'est normal nan ko joxe ñun ñoo ko gën a soxla waaw ñu bees ñaa ngi nii kenn amul waaw kenn amul waaw ndimbal nag ku koy ku ko joxe dafay gaaw Macky joxe na mu gaaw waaye ñit ñee ko téye nan bàyyi lu nu rax tëgg ci përëm nan bàyyi loolu. asalaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant ku leen nuyu naa la ci sa tur ak sa sant. ñun nag ñooy waa som ñun ñii ñooy waa som dañoo ñëw rek jooytu suñu suñu naqar daal moom la ñu ñëw jooytu te lii ñuy jooytu am nañ ci droit de moo tax ñu koy jooytu ndax nag suñu président bu jomba ñaaw bii di Macky Sall di jàppale jigéen ñi dimbale jigéen ñi du tas yaakaar ndax bu doon tas yaakaar kon li mu def du ko def waaye bu fekkee ne joxe na xaalis bëgg jàppale jigéen ñi rek a tax mu def ko xaalis boobu ñu koy dégg muy quatre-vingt yi dégg nga 80 mille yooyu génn na de waaye ba mu génnee de ñun gisuñu ko ñun waa som du kenn koo xam ne kii jot na ñun Thiès fii som kenn jotul wala ma xam ne ñi am ah wax dëgg yàlla ñi amula leen ëpp kon nag ñun wax dëgg yàlla buñ dee ay jigéen féetewuñu fenn lépp ñun la war sa suñu fenn jub si tabaski ji xaru tabaski war ñu du dëgg ay yére war ñu ñu njaboot añ reer ndekki lépp kon 80 mille yooyu bu fekkee ne ñun ñoo ko moom nañ ñu koo jox ndax Macky Sall joxe na ko ba pare lam tooro buur gode gede kenn merewu la sàll ngaari kenn merewu la jàppale nga jigéen ñi jàppale góor ñi dañ lay ñaanal yàlla ca kaw ca kanam Macky waxal ñu jox suñu xaalis bi ndax génne nga ko ba pare sonn nañu de suñu xaalis bii nag moom moo ñu tax a toog fii añi wuñu defuñu dara yàgg nañ fi toog di kaas ci suñu xaalis bi nañ ñu ko jox ay jigéen lañu nañ ñu jàppale sonn nañu de fans club bu Macky Sall la ñu yor fii awa dafe laa tudd nag dëkk cee si som ñu ngi fii toog di jooy jooytu suñu naqar nañ ñu jàppale suñu xaalis 80 mille yi nañ ñu ko jox bourse bi itam wax dëgg yàlla ñun ñi bees ñu bindu ñëpp kenn mësu cee am kenn mësul am ci bourse yi nañ ñu dimbale jox ñu ci bourse yi sonn nañu lool ñu yuuxu nag fi ñu war a yuuxoo la ñu yuuxu Macky yow la ñu bëgg nga dégg ko waxal ci xaalis bii nga joxe nan ko génne jox ñu suñu xaalis jërëjëf Sall yal na la yàlla defal jàmm Sall. asalaamaaleykum mbokki jullit yi yéen ñëpp maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur sa sant waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi maa ngi tudd Ndeye Safi Ndiaye dëkk Som man de bu sii ma damaa jaaxal quatre-vingt mille sax nag laay wax ndax bu sii ñoo ngi koy jot normal waaye quatre-vingt mille yi moo ma jaaxal ndax ba ma déggee nit ñi jot nañu ba mu am un mois damaa dem Kajoor jànke ba ma demee Kajoor jànke ñu ne ma xaalis bi moo ngi fi daa am moo ngi fi ñun ñëpp seen xaalis a ngi fi ma toogaat ay diir dem Wizall ne ba ma demee Wizall ne nag. carrément ñoom dañoo ne dañoo am erreur ci xaalis bi ndax xaalis bi daa am ñoo xamante ni dañ leen koy yónnee seen i message day ñëw waaye suñu ñëwee ñun récupéré nañ seen xaalis ñun nag dañuy ñaan ya dañuy ñaan Macky Sall mu wax ci waaw Wizall moo ne ci boppam nee nañ dañoo bloqué xaalis bi ndax ka waaw waaw dañoo dañoo bloqué xaalis bi ndax man day faal ba mu ñëwee list bu ko waa ko jël jànken yónnee jox ko ko man sama turan ci turu ñeneen ak ñeneen a fi nii nii war eh, jot nañu te jotuñu ñun ñëpp te ñun ñuy jotul moo ëpp fuuf ñu jot ñun ñuy jotul ñoo ëpp fuuf ñu jot Macky Sall moom ñun ñoo ngi koy gërëm ñoo ngi koy gërëm Macky Sall ñun ñoo ngi koy gërëm te luñ koy ñaanal yàlla sàmm ko sàmm njabootam ñun ñoo ko koy sant ñoo ngi koy gërëm ndax su woon moom waaw te jotuñu ko waaw message yi si Wizall Money lay jóge waaye ñoom suñu ñëwaatee dañu naan xaalis bi récupéré nañ ko liste ma Ndeye Fall bii man mi sama tur man mii rek personne te may wax nii sama turam ci te jotuma ñii ñii seen i turam ci te jotu te liste bi man dañ maa ne jot nañ ma jot naa fayeeku naa te ma man loolu man moo ma jaaxal te man foofu dem naa ba wisal moo ne ci ñoom ñu ñoom heure boobu ci ñoom ñiy liggéey ci heure boobu ci ñoom la nekk ndax ñoom am na ñaar ñu ñu ci jàpp sax nee leen indi leen xaalis bi ndax seen i borom ñoo ngi taxaw waaw ndax seen i borom ñoo ngi taxaw ñoo ngi nii indi leen ko wala ñu créé leen yóbbu leen gendarmerie dégg naa ñooñu ci lañ indee xaalis bi ñu jox seen i borom kon ñun daal lu ñuy sàkku ak lu ñuy ñaan seen quatre-vingt mille suñu ko joxoon ci tabaski gii ndax dañoo yor suñu njaboot man sama doom rek carrément dama koo ne carrément heure bu ma jotee quatre-vingt mille yi jëndal la ci li nga xottee ba léegi xottiwul kiiwul man sama jëkkër damaa baax ah jékki dem bàkki rusa xaru tabak si sax maa ngi doon wax ni quatre-vingt mille yi su jotee ma jox koo tànk kii maa ngi sant daal waaw maa ngi daal maa ngi sant moom Macky Sall moom maa ngi koy sant di ko gërëm Macky Sall daal li ñu koy ñaan gudd fan ndax moom su du woon moom xaalisu nguur gi duñ ci jot ndax ñun jigéen ñëpp ci la ñuy commerce la ñuy def dara 80000 yi man tey ji man suñ ma ko joxoon man maa jënd sama bop xar tey 80000 suñ ma ko joxoon du ma ci dooli dara mu mat 100000 ma jënd sama xaru tabax aw ma xaru tabax si dama amee tànk sama tànk bi daa neewi boobu ba léegi maa ngi tëdd bi lii ma dégg moo tax ma jug nañ ñu jàppale nag jox ñu ko balaa tabaski gi nag ñu am luñ ci def ah ñun ay jigéen lañ te Macky Sall moo xam naa yërëm na jigéen xam na lii moo tax mu def lii mu def ñun daal ñoo ngi koy sant mu ngi koy gërëm waaye daal moom nañu waxal te ci 80 mii yi sant nañ ko gërëm nañ ko